kon waa Tamba jóg leen jóg leen waajal seen bopp band yaa ngay ñëw jóg leen jóg leen ana waa dépôt ana waa quinze ans mbugu ana waa Gurel ana waa pont waajal leen seen bopp band yaa ngay ñëw cetëtëtëtë tey dëkk ba tàng laa ilaha illallah ay waay ñun yàq nañ ñu waaye lan lañ def réew mi bañ yàqu ñu ni dajale seen junni association de bandi malfaiteur yóbbu ko Tamba ay ca maa ngi woo Kangam squad di woo gaa yëpp waa Tamba yëpp di woo ñoom Alizé ñoom Peni gaa yëpp tout ça ñoom Lamine Luna waa jël leen seen bopp gaa yi jël leen maa gi jël maa gi éveillé waa Tamba non non non non non non du ñu yónni bandi yi ñu ñëw accaparé Tamba tëj suñu papa yi tëj seen yaay yi feneen leen jiiñ leen ay affaire ko force commando force nucléaire déedéet loolu moom mënu fi am moom. ñi ngi ñaan comme ñoom gouvernement bi jël nañ ñu région yi bëri nañ fi ñu bàyyi. dëkk yëpp ñëw tuur Tamba te man Tamba ca laa bokku donc yoon la wax naa leen ko li ñu ma def metti na ma metti nañ ma metti na ma nag am na côté bu ma kontaanee mooy bandi yooyu mais mun nañ leen mun nañ leen fu ne sauf Tamba sincèrement xaw ma lan la ñu def ñun ba ngeen yànnul ñu seen association malfaiteur yooyu tuural ñu ko tuural ñu ko suñu dëkk ba yónneewu leen ñu benn yónneewu leen ñu ñaar dajale ñetti ñeenti waaw donc lii metti nañu torop torop torop sama gars yi voilà loolu nag damay woo bépp waa Tamba nañ ci taxaw comme euh, le coup est déjà parti di woo waa Tamba ñu taxaw ñu taxaw taxaw ngir yàlla lillaahi wa rasuli nu mu gën a gaawee le plus rapidement possible éveiller peuple bi xamal leen ni ñu waajal leen préparer leen psychologiquement ni association de malfaiteurs bu tàng ña ngay waaj a ñëw ak te dañoo yàkkamti te gaaw ci jiiñ accusé nit ci ay terrorisme force spéciale force occulte dama ne maa ngi leen koy wax Abdou boo rombee sam papa ba teg ko fa ba jël ay nit naan ay force occulte wala force commando man a yow dinañ rayante da ngeen cee gaaw Abdou Karim da lay xool nga xool ko ki sax mu ne est-ce que du terroriste association des malfaiteurs association terroriste for force spéciale force occulte force commando force nucléaire bombe kon Tamba jàmm fu mu sa am yaroon nañ ñu nag ay bandi tuural ñu leen Tamba amul agression amul sàcc amul crime rarement nga ko fay dégg neen nañ ñu nag association de malfaiteurs yi gaa yaa nga fay di dem bàyyi leen sañu waa réew ci jàmm wax nañ an artu naa leen nag artu leen nag foofu rek lañ ñuy attee voilà artu naa leen Tamba defuñu lu lu mérité lii sincèrement ay nit yoo xam ne baaxuñu bàyyi ci kër baaxuñu bàyyi ci àll ñu buub leen ñoom ñëpp tout Tamba pourquoi pourquoi qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ñun waa Tamba lan la ñu def pour mériter loolu loolu nag ñun waa Tamba dinañ def association de malfaiteurs libéré Tamba loolu dañ koy xeex libéré Tamba libéré Tamba ñu dinañ ko dajaloo te dinañ génn kaas ne Tamba lan moo tax ngeen yab ñu lan moo tax ngeen xool ñu ba xoolanti ñu yab ñu di ñu tuur ngir band yi nga xam ne kenn bugg leen gis kenn buggu leen am ci seen kër ngeen tuural ñu ko lii métti nañ trop voilà munoon ngeen ti munoon ngeen leen tasaare ngeen jël yóbbu kii Kaffrine yóbbu kii yóbbu kii euh, euh, Goudiri yóbbu kii Malem Odar yóbbu kii parc ko koba defu la ngeen dajale bande yëpp ne leen fëpp Tamba xëpp leen fa léegi ñun suñ parents nañ la ñuy def tey man est-ce que man sama papa bu génnee dootu na amati jàmmu est-ce que sama dina dina mun a am sécurité suba mun nañ ko fa tuddee force occulte wala force spéciale mun na dox ñu jàpp ko euh, force commando mais <laughs> ça affaire bi mu mujj na métti mujj na métti wax naa ko nag métti lu naa ko tey man bu may métti lu moom ci ñoom laay dem léegi laa coppe ñoom nee naa leen lan moo tax ngeen dajale association malfaiteurs yi er, bande de racaille bi tuur leen ñoom ñëpp lan la ñu def quoi lan voilà wala ñu jël kenn mais association la ñu dajale noonu ñoom ñëpp tey ñu toj tàmba mënoon nga jël kenn yóbbu ko saanaar kenn ki madame Odar kenn ki Bunkiling kenn ki nangam mu nga dajale association boobu yëpp nga xam ni toj toj yëpp ñoo ko def ñu tuur leen doo tàmba sama réew léegi mettre sama papa en danger sama ma fa nekk noonu il e en danger maintenant tous mes frères woo leen seen mbokk yi nekk Tamba woo seen mbokk yi nekk Tamba ñu waajal seen bopp sécurité pour nous sécurité sécurité pour nous Tamba est en danger au secours Tamba est en danger sécurité pour nous voilà loolu ñu ngi koy réclamer di woo autorités yi on est en danger nañ ñu yokkal policier nañ ñu yokkal ay policier ak ay gendarme yàlla sax bu ñu bu ñooñu mujj jàpp ñu nag ay force spéciale ak force occulte ak force tranquille waaye Tamba lu ma def yàlla kon maa ngi woo waa dépôt Gouguou Gurel Kalbora HLM euh, Plateau di leen woo ñu jóg waajal seen bopp nañ taxaw gaa yaa ngi ñëw nañ taxaw te jour bu ñuy ñëw dinaa leen alerter taxaw leen taxaw leen waajal leen seen bopp bu leen nangu kenn di leen fa diiñ force spéciale wala force occulte wala force commando voilà di leen accuser de terroriste lu ñu def nag jox ñu ko ñun waa Tamba dajale ñëpp tuur leen foofu amul nu ñu metteewul mais yàlla baax na yàlla waxul kenn dara voilà parce que dafa ànd ak mbégte. parce que raxas nañ leen bañ sax noq ca xaj ñoom xamoon nañ loolu xamoon nañ bu baax ni doo duñ fo duñ fa toog donc euh, bale bi moom jàll na bale bi moom saf na sap sap sap sap sap sapaaral réew mi ngi mel ni àjjana waaw ñun danañ def pétition ñun waa Tamba ba dama woo naa sama waa gàlle jóg leen ci seen bopp jóg leen ci seen bopp waa waajal leen bandi yaa ngay ñëw te dañoo gaaw ci euh, euh, mu benn benn terroriste ñu dàq ko mu jóge mu jóge Casamance après mu dugg ci clando bi ñu topp ko ñu topp ko mi ngi yoroon benn bombe atomique nucléaire ak benn buumu xar ñu dàq ko mu bàyyi buumu xar bi bu mu ko dàqee après mooy kii mu dugg ci kii bi ma ma patt ko mooy ci laa ko patte xoj ko mu ne noo ma bomb euh, pétard laa yomb ma ma jël pétard bi après ma takk ko ak xar bi am na ñett yu daw maa ngi leen di wër boobu ba léegi moom ak juróom-ñett la moom ñu jàpp ko doom juróom-ñett yi tasaaroo nañ mais euh, attention attention ñu jël ñu mel noonu jël tuur ñu ah jël ay Abdou Karim ñëw tuur ñu jël maa xam ñëw tuur ñu jël jël jël jël euh, Mamadou Mamadou Seck ñëw tuur ñu non gars yi jóg Tamba nag dinañ xeex. non non non non non Tamba mooy dëkk première région bu fippu ci ci système bi première région buy sipp buy fippu ci nguur gi Tamba lay doon. te maa koy jiite dañ dinañ wax nu ñu yabee ba yanul ñu band yi gën a ngand ci Sénégal tuural ñu ko voilà parce que ñu naan ay ñun amuñu ndox ñun ay déeg lañ am ay Tamba ay déeg ngeen yor amul leen géej kon du am vent boobu du am brise brise brise de mer bi te gars yi dañ leen bëgg dugal fu tàgg jër comme fi ñu doon dugal nit yi ñoom foofu lañ leen dugal te foofu Tamba amul brise de mer amul géej amul rivière amul marigot ay pont la am ay faro d <laughs> dima ci xasaale mais maa ngi woo bépp doomu Tamba après ñu daje ubbi sañu benn groupe WhatsApp commencé waxtaan xool yan forme la def pour commencé na xeex balaa balaa ñee ñuy lekk nag ñu jëlee leen fa ñun ñun suñu bopp waa Tamba ñooy dem fekk fu maa xam jàllo nekk ñu tëmbal fa ay xeer daqe ko ba nga xam ne ñoom dootuñu nekk day duñ nekkati en sécurité balaa ñu ñoo rey nag ñu rey leen voilà kon Tamba waajal leen ko ñu xool nan la ñuy waxtaanee voilà en attendant bu leen fàtte montre bi ah montre euh, dem naa yóbbu ko banque xool testé mais lu ñu ma expliqué mooy euh, montre bi maanaam mun naa cee am euh, jet privé ah. waaw montre bi mun naa cee am jet privé kon maa ngi koy sant yàlla liggéey naa ba nga xam ne yor naa montre boo xam ni mun naa cee am jet privé loolu sant yàlla la kon gars yi maa ngi leen di bëggee ci côté boobu ah maa ngi leen di bëggee bu baax ci côté boobu noonu voilà voilà mi ngi noonu waaw loolu daal loolu daal comprendre man suma jëmm mm-hmm. mun nga cee am mun nga cee mun mun nañ la cee garanté jet privé mu ngi noonu. kon nag loolu na ngeen ko xam noonu na ngeen ko xamaa waaw man ci sama jëmm laa la wax de waxuma ay taxawaalukat maa ngi ba Canada ay dollar moo fi ne yoruma CFA tu vois ba pare man ci sama jëmm. man ci sama jëmm. waaw. montre bi ma takk boo ko yóbbu banque. wallaahi ya test naa ko. mën nga ci mën ci garanti jet sama alal la. woote wu ma leneen sama alal la montre bi maa moom te maa liggéey ba am ko te mun naa banque laa dem testé jox leen ko ñu ne ma garantir mun nañ la ko teel garantir la ko jet privé donc voilà quoi ngeen ñaanal ma rek cat bañ ma dugg voilà ngeen ñaanal ma cat bañ ma dugg daal yàlla yàlla waxul kenn dara ngeen ñaanal ma cat bañ ma dugg loolu yëpp yàlla moo ko def nag yàlla moo ko def xam nga ko yàlla tàcc moom moo tax ma dem wut montre bu mel nii samay doom mun nañ dund ba dee duñ jaaxle seen bàyyi bàyyi na fi montre boo xam ni euh, bu ko yób buñ ko yóbbee banque mun nañ cee am garantie jet privé donc man <laughs> loolu liggéeyal naa ko samay doom liggéeyal naa ko mi ngi nii montre bii ngay gis nii man ci sama bopp ci sama jëmm liggéey naa ba am fi montre boo xam ni assuré naa samay doom ni ëllëg bu ma leen wanee ginnaaw mun nañ dem dugal ko banque am ci jet privé <laughs> sant yàlla <laughs> politique da ngay waajal sa bopp man dama waajal sama bopp politiquement préparé am ay argument yu dëgër dem ba am montu bu dëgër boo xam ne tey jii te mu fi jóge woon sama njaboot mun nañ ko yóbbu banque am ci jet privé loolu politique day am gis nga politique argument la politique xel la samay argument yi mel noonu nga ñëw ci dëkk di ko fa joxe da ngay ci ngay comprendre ni politique il faut nga jàng il faut nga maîtriser am ay argument mun a défendre waaw voilà napp sénégalais xamal leen ni yoon nga montre bu doy waar boo xam ni ku la bëgg a dof dof lu fontoo nga tay la ko éliminer ko <laughs> voilà loolu ay stratégie la nag ay stratégie la mi ngi noonu voilà montre bi tam bokk na ci lu tax doo gaawaat di nga takk montre bi di gaaw jël sa jël jabar ni mu sàcc say montre wala njabootu sa jabar sàcc say montre <laughs> do waaye ñoo xam ne dañ lay waaxu parce que yëg nañ ni am nga montre boo xam ni mun nga ko garantir jet privé ñu bëgg la sëllax seen doom naan la takkal takkal takkal kooku sàcc montre bi nag <laughs> nooy def <laughs> waaye booy yow mun la ñu mun la ñu nax de on comprend plein de choses mun la ñu nax montre bi daal di ngeen ko fi bàyyi de di ko fi bàyyi de voilà donc euh, kon gaa yi tey kontaan ngeen naa ah? gis nga lu tëgg tas jaana ndeysaan ay maa xam Hamadi Diouf maa xam Diallo Abdou Karim sama grand day dégga ndax ñii moom ñii moom waa Tamba duñ leen fa bàyyi ndeysaan dañ naan rat indi ak eh, ki nga xam ne mooy Abdou Karim ne yónnee leen ma ko ñu indi mu teg tak tak procureur ñu enchaîné maa am alors <laughs> waa ji ñëw na de kookal la Sonko ah dóoral ma ko deuxième cabinet ah kan la waaw yow Mamadou Seck nga fa nga ñëw Mamadou Seck di ree <laughs> naka mu ndekki nga baax <laughs> mbaa añ nga mbaa reer nga <laughs> mbaa say um mettiwul ah d'accord d'accord ah dégg naa di terroriste nga yow noonu ci force spéciale yi nga bokk nga ne ah, ah man sa papa force spéciale la <laughs> sama papa def na 40 ans force spéciale <laughs> waaw wuy ma xaaral ma ñëw dóor la mandat dépôt waaye nga dem noppali xam naa ku sonn nga say xaram gi moom <laughs> sonn xaaral ma noqal la mandat dépôt mu wut sek noonu la la def de di ree ngay reetaan ba mi ngi neex yow doon nga sonn sa yaram te xoolal sa bëdi nu mu xonkee ndeysaan xaaral ma noqal la mandat dépôt nga dem noppali ko rëbës dégg nga ne la faj ngaa yi jël mënata yóbbu dugal la ci oto ba ka dugal la ci kaab ba fas yéene jël ñeneen ñu enchaîné rëbës dàmbaloo Abdou Karim woote allo <laughs> maa xam alors ana ana ana saa yi non jox naa ko jox naa ko paas naa ko euh, euh, Momadou Seck ah fukk Momadou Seck waaye ndox ndox ko rëbës bi yàgg <laughs> au suivant au suivant ubbi buntu bi <laughs> nga ñëw waaw progrès fekk def na tàkk am nga Abdou Karim moom tàkk lay def euh, ne xulli fa kii ko la jomaay hmm, d' accord jomaay d' accord jomaay uh-huh. luy sa tànk yow ah da nga saaga da nga saaga magistrature bi yow hmm, d' accord waaw xaaral jël téléphone bi maa xam eh, naka mu gaay waaye maa ngi fi jomaay <laughs> oh, booy séeréer bi ngi nii de <laughs> maa ngi la koy yónnee nga doxal ma ko enchaînement joxal ma ko Momadou Momadou bloqué dugal ci euh, ci camp yi rëbës wala euh, non non nañ ko yóbbu camp pénal non ko Koutal ok waaw ah, loolu <laughs> ne la waaye saa waaw d'accord xam naa yow ku nga ni fu mu nekk nii yàgg ñaata fan nga def ci giri ba nga def naa quatre semaines ah quatre semaines ah retour de parquet <laughs> dama doon naan <laughs> yëpp boobu premier jour bu ñu la indee eh, dama doon naan ataaya deuxième jour bi sama jabar da doon daf ma doon préparé soow soow bi tuuru quoi euh, troisième jour bi <laughs> sama jabar dama amoon ay gan ñu préparé bisaab weñi weñi toq ci donc moo tax mënu ma woon am jot quoi quatre quatre retour de parquet yooyu yëpp maa ngi jégalu ah sama jabar moo tuuroon soow bi après deuxième bi euh, sama jabar dafa doon waajal euh, vraiment ak samay gan pour ñu defar defaral leen ay bisaab buy euh, euh, benqal et cetera ay jus jus mus nga ñam bu jus benqal non noonu la ñu def de mus nga ñam jus benqal ah ah jus benqal waaw mus naa ko ñam <laughs> neex na jus benqal ak ah, neex aw <laughs> oh, nokk sama mandat dépôt <laughs> jus benqal ñam man jus man jus benqal ma gën a noonu la ñu tëjee booy nag billaahi jus benqal ma gën a non non non pourtant jus bisaab nag neex na mënoo nga def suukar xaaral waaye eh am na koy fëgg xaaral ma yow yóbbu la ci maa xam waaw ok rek tak jëlaat téléphone <laughs> maam booy bi ñëw de ñu sol ko maa moom le monstre froid maa xam muy eh, na ngeen def <laughs> sant bi njaay njaay njaay njaay njaay njaay njaay njaay na def njaay jaata njaay <laughs> ah yow la eh, waaw de dañ maa indi de ah, ah yow yow booy yow ana bomb bi mbaa takkoo ko ah ah takkoo bomb eh, non non bomb grand non ah force spéciale nga de booy est-ce sa buum ma lii du bomb lii du bomb non non lii nomb la non non non non sumil sumil nomb bi bomb la bomb la wuy ma xaaral sax ma ñëw yow <laughs> yónnee la Mamadou Seck <laughs> allo Amadou Seck Seck Seck Seck Mboor Seck Mboor maa lay yónnee <laughs> benn force force occulte moytu ko rek ab nomb la solo mais summi naa ko bomb la bomb naka da boy bi nomb bi ci biir da ca def bomb attention waaw ok na ko ñuus ci rek ok Modou nga ñëw Modou Seck toog saa ko yow xiif nga ñaata kii nga def na la ko tuy nii lañ jàppee woon gars di dóor di dóor rek nag di dóor rek willaay wallaay di fëgg di jàpp dóor booy deux mille cinq cent détenus politiques rang tëj ci biir paquetage dàmbaloo ñu toog ñu toog nag di rëy bu ma Abdou Karim di dóori wiskeem Euh, maa xam naan ko maa la raw bi mooy le monstre fourrara moom moom na nga naan la ko lekk ñu Mamadou Seck def tat moom tamit ñu ñu jàpp gars yi di saax rek nii da lañ ko defee woon waaye nag lu tëgg tas te jeex na gis nga sénégalais ni ñu kontaanee man ñu mel noonu ñu yóbbu leen Tamba tamit damay nekk en ku sa mbokk nekk Tamba da ngay tiit jamono ji képp ku sa mbokk nekk Tamba nekkoo ci jàmm sincèrement man moo tax dama tiit tiit tiit tiit jamono ji dama tiit parce que ku bokk sama papa ndey ak baay man Tamba laa màggee Tamba laa defee primaire sixième cinquième quatrième Tamba laa màggee Tamba ah, waaw dépôt pont kon tey jii képp ku sa mbokk nekk Tamba tiit nga man moom fu nekk nii sama taat yaa ngi tëgg tama xaw ma nan laay def <laughs> voilà ñeneen ñaari paa yi ñoom ñi ngi fële ñi ngi ci ministère bi voilà ñaar ñooñu ñi ngi ci ministère bi ñu ngi noonu Hamadi Diouf ak Grand Bakhoum ñoom ñi ngi ci ministère bi voilà ñi ngi ci ministère bi parce que grand grand yooyu tam aussi lu leen dese pour ñu retraité bariwul quoi moo tax ñu yóbbu leen foofu parce que tamit <laughs> grand yooyu tamit vraiment ku leen yóbbu Tamba xanaa da leen bëgg a rey da leen fay yóbbu rek ñetti fan ñu ne la faatu nañ fa yàllaahu rek <laughs> te gars yi bëgguñu yi dee ci seeni loxo c'est normal quoi ñu bàyyi leen ci euh, kii bi ci tribunal bi donc ñu teg ay gars yi nag yoo xam ni euh, xëy na euh, bëgguma ci gaaw teel a avancé mais ay nit la yoo xam ni ñu ma xam yoo xam ni gëstu naa leen ay nit yoo xam ne vraiment procureur bi euh, euh, daf na fi jaloore jaloore jaloore jaloore voilà jaloore jaloore bu fekkuloon ki nga xam ni moom moo nekk tey jii ministre de la justice procureur bii mooy nekk ministre de la justice ñoom ñaar ay doomu nday liggéeyandoo gore procureur bi genre ibaadu la genre ibaadu la ju kocc kocc kocc am na sëriñ bu mag bu fi newoon ci réew mi yëngu tëll tëll Cees moo moo ko dugal ci kaso bi procureur bi hi ak a dëgër le ak ak ak ak a wowle ak a wowle sax laa ilaha illallah voilà ñu bañ a teel a dugalagum gars yi ci bari bari bari mais ay jàmbaar fàq tëdd lañ <laughs> waaw ay jàmbaar fàq tëdd waaye noonu ñooñu ñëpp nag ñeneen ñi ful dañ leen euh, ancien procureur Bassirou Gueye moom Macky Sall moo ko fa teg mais da ko protégé lu ko fay dindi assemblée nationale kese maanaam ñu ci bëri assemblée nationale lañ leen miine ba nga xam ne assemblée nationale rek ñu Macky moo leen fal ba pare protéger leen ci assemblée nationale mooy du ñoo xam donc sama gars affaire bi mat na sëkk xeex ngeen teg fi jomaay teg fi sonko ñi waxati ñi ngi changé système bi di dugal nit yi di teg di teg éléments yi mu desoon ñaari équation équation second degré bi premier bi moom moo nekkoon lan magistrature bi raxas nañ ko ba mu deuxième bi nag moom mooy jeexal ngénte gi maanaam muy assemblée nationale loolu rek lañ leen sant moo fi des assemblée nationale majorité garantie ñu lijjanti leen réew mi ba mu ne cocc cocc cocc cocc kon magistrature bi euh, équation ba résoudre nañ ko donc benn moo fi des muy assemblée nationale bi ngeen joxe ko majorité garantie ñu liggéeyal leen réew mi ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk doo leen am loo leen di jooy ak loo leen di jooytu nee naa leen lu ci bari bari bari liggéey nañ ko ba boucler ko maanaam li ci jëm ci ay affaire u ndàmpaay ñi ñu gaañ ñi ñu rey ñi ñu tëjoon ñi ñu lépp lépp lépp lépp commission bi nga xam ne defoon na réunion bi réunion na ci waxtaan na ci trouver nañ consensus xam ne ñëpp seen boobu mooy maanaam ñi ñu gaañ ñi ñu tëj ñu ñu rey ñu ñu ñu ñu yàqule lépp gars yi tënk nañ loolu lépp ak ñaata milliards lañ ci war a def loo xam ni yéen ñëpp incha allah euh, di ngeen ci jot reddition des comptes bi lii la doon xaar reddition des comptes bi lii la doon xaar magistrature bi mat na kon euh, problème reddition des comptes yi ngeen di wax léegi mu tàmbale ñu ubbi tribunaux yi cours et tribunaux bu boobaa koo leen gis mu dugg duggee nag ah. comme ñii di dugg di génn yor seen i rajo ak def waajal leen ko mat na sëkk incha allah bu soobee yàlla bu donc yéen yéen a ngi doon wax ay waxu ay ndàmpaay ngaañ guñ leen gaañ wala luñ leen di loolu lépp commission boobu tënku na mat na géré nañ ko moom mooy lépp li nga xam ni mi ngi jëm ci ndàmpaay leneen li moom mooy justice bi lii lañ doon xaar mat na donc du yàgg arbitre bi day siffler déclenchement boum bombardement am na nag ñu ci jot a rëcc ñoo xam ni Abdou Karim encaissé na bàyyi leen ñu daw ki nga xam ni waa CDC ñoo ko porté plainte muy Mouhamed Silla moom ci milliards yu mu jël bu CDC contrat yi daw na lu tax mu daw waxoon naa ko gars yi parce que dafa encaissé Amadou euh, Abdou Karim moo ko woo bureau porté plainte CDC encaissé ko ay millions bàyyi ko mu daw daw na dem France am na ñu daw dem Amérique mais on les a à l'œil te mun naa la wax turu ñu ci ñëpp képp ku ci daw am na ñu daw ñi ngi Amérique am na ñu daw ñi France am na ñu daw donc yor liste boobu yëpp yor nañ ko liste boobu yëpp yor nañ ko donc bu leen tiit bu leen jàq bu leen ragal incha allah bu dul ñoom ñu nangu seen kër yi fii yu ñu fi bàyyi nangu seen compte yi am na ñu ci am ay kër yoo xam ni ci ay prête non la enquête ya wane na ko buñ leen mënul jàpp ñu daw dañuy nangu seen kër yi xam nañ ci lu bare bare bare bare bare donc am na ñoo xam ni procureur avant moo dem liggéey na fi liggéey boo xam ni encaissé fi xaalis jël ñu bëri bàyyi leen ñu daw làqutu yi waaye seen i bien ñi ngi fi voilà seen bien ñi ngi fi voilà na nga ko xamee noonu donc euh, di leen wax ni euh, incha allah bëgg moom di ko def donc euh, lépp mat na gars yi ay jàmbaar lañ boo leen wóoloo bu leen faqastal boo leen wóoloo jox leen sa yaakaar incha allah doo ci am benn déception benn déception bu soobee yàlla donc euh, gars yi kontaan nañ ci yéen lool lool lool ci taxawaay boobu donc gars yi nag ñi ngi def seen stratégie ñi ngi teg seen équipe ñi ngi teg équipe ñi ngi dox ndànk ndànk cool tranquillement mi mi ngi chill mi ngi chill gis naa nag waa APR yi euh, <laughs> xaw ma kañ lañ ma bëgg ba jël ma naan moo laa poste moo laa poste man laajuma benn poste laajuma poste maa ngi cool poste bi ma nguur gi def ma doon benn undercover def lépp gratuitement au nom de ma patrie bugguma pour leer rek bañ a caaxaan man bugguma poste wutuma poste maa ngi cool tranquille fii tranquille chill nekk sama jàmm salaam awul poste bu bugg parce que man dafa am benn rab sama rab buggul toog bu ma la jëlaloon poste danga may dàq léegi parce que <laughs> sama rab man buggul toog moo tax may voyager partout dans le monde danga dégg fii dégg ma fee dégg ma fee dégg ma fee dégg ma fee lu nit di lijjanti lu ma njëkk a lijjanti mooy këyit yu dëgër këcc boo xam ne mun naa cee voyager wër àdduna loolu laa njëkk a lijjanti parce que sama damaa gëstu sama rab sama rab voyage rek la bëgg sama am am lépp ci voyage laa ko amee bu ma toogee rek yàqu donc kon ma xam naa ne bu ma ñëwoon Sénégal ñu jox ma fa poste tamit dañ may dàq parce que damay xëy rek sama rab na ma jógal ma yenn samay bagage ne fër dem sama yoon ñuy wër moolaa ana moolaa moolaa fekk moolaa dem na bu yàgg <laughs> nit na da xam sa bopp jëluma benn poste laaluma benn poste man daal undercover laay liggéey undercover man maay undercover nguur gi ñu ubbil ma seen bunt ubbil ma seen fenêtre lu ma bëgg wax dinaa leen ko wax li ma bëgg a communiquer dinaa leen ci communiquer et cetera et cetera wuñ ci dara dara bu ma bëggoon poste du fii laay ñëw naa leen poste poste xam naa numéro président Diomaye xam naa whatsapp am lu euh, mu tuddati xam naa email am lépp moom moo ma ko joxal boppam moom moo ma bindal boppam numéro am email am whatsapp am kon bu ma buggee poste du yéen laa koy wax damay dem ba ci moom allo waaw wala ma yónnee ko message mu gis ko kon donc <laughs> wutuma poste wuruma poste bugguma post ñaar ñi ma leen waxoon sax ñoo xam ni propos ci bokk na ci samay proposition ñaar ñi dugal nañ la ko moo tax kontaan naa ci ñii wallahi billahi ça fait deux semaines may wax ak kilifa mun na ko seede te am na ku mu ko seedeel may wax ak kilifa ma ne ko faal mu ne waaw ma ne ko ñaar ñii tànk bokkuñu ci nguur gii duma kontaan mu ne ma ñan la ma ne ko yow ak nit dof mu ne ma ah mais faal loolu daf ci seen ma ko dinaa ci def lu ma mën yow ak nit dof nu mu metti metti metti parce que man damay sa man rappeur laa te dama bëgg rappeurs yi ñu leen jox ay poste de responsabilité donc musuma kaasal sama bopp te loolu laa jël def ko sama combat démb xaw ma bërki démb dégg nit dof ak ki nga xam ni moom mooy euh, euh, kilifa moo tax tey kilifa bu ma woowee ñu waxtaan sax loolu lañ doon wax di ree mu ne ma gaay yi xamuñu ni bokk nga ci ñun bokk nañ ci sa sollicitation pour ñu jël la donc euh, man moom <laughs> bàyyi la ma fii gars yi bàyyi la ma fii dama di dégg ay Espagne Amérique Canada may naaw di fly foofu la sama wërsëg yëpp nekk sama wërsëg nawul Sénégal mu ngi ci monde bi ci asamaan si te maa ngi koy jëli te am na lu may dee naan ma demal Japon ma dem Japon lijjanti fa laara fa am na lu may dee na ma demal Chine ma dem Chine demal Corée Corée du Sud dama yeewu benn benn jinne moo ne ma demal Corée du Sud xaalis bu bëri laa fa dajale barke alxuraan liggéey fa xaalis bu laara fokkin doo ñëw loolu moom may déey na ma demal demal Canada ma ñëw Canada demal kii donc <laughs> donc moo ñëwoon Sénégal tey ji dañ may dàq suba parce que dañ may jox joxi poste ma bàyyi ko fa moo tax nee leen bàyyi ma doon seen seen maanaam kii leen di wax a undercover nekk ci mbedd mi nekk ak sénégalais yi di récupérer seen naqar seen mettit di leen wax ci yar ak teggin parce que ay kilifa ngeen après dem sama yoon point maa ngi cool maa ngi tranquille kon waa APR yi nga xam ne ñu du waaye on poste moo la man maa leen wax damaa bëgg poste <laughs> man maa leen wax dara postu <laughs> xamu leen lu xew <laughs> bu ko postu de wóoruma postu bu desee lu dul wax pour gars yi ñu ñu dugal sama gars yi kil laa fa wax ak ak kilifa te kilifa mun na laa mun na ko seere voilà kon man wóoruma postu donc voilà nekk fi nag nekk la porte-drapeau de cette révolution taxaw nekk ci diggante maanaam nguur gi ak peuple bi nekk benn anonyme benn undercover benn mission secrète lépp lu sénégalais di naqarlu di mettitlu dinaa ko jël woo leen jox leen ko ne ah lii la lii lii la lii lii la ñu koy lijjanti ndànk-ndànk di ci waxtaan parce que samay nit rek a nekk pale nag samay nit ba ci le président de la république samay nit kese ñoo nekk pale samay nit kese ñoo wër jomaay samay nit nit yoo xam ni dem ak bërki démb la démb ak bërki démb bu daana amul samay nit kese ñoo nekk palais ba ci président bi ba ci ku ku mu jege droite ba ku mu jege gauche ñoo ñëpp samay nit lañ démb ak bërki démb du tey nag xaw ma leen tey de comme nu ma xamee président bi bu yàgg yàgg noonu laa xamee ñeneen yàgg yàgg yàgg ci ënd boo xam ne bu ñu toogee di waxtaan waxtaan yi neex la ñuy waxtaan ba dañuy fàttaliku démb te damay waxtaan ak sama benn copain ku mel ni benn Pape Mada ministre la moom mi moom mooy euh, euh, chef de ministre kii Pape Mada Ndour fu ne jaar nañ fa man ak moom lu sama best gaayen la yor naa numéro am dañuy waxtaan dañuy def lépp donc pale samay nit ñoo fa ne samay nit ñoo fa ne nit ñoo fa lu ma jaaxal lu ma bëgg a wax mun naa koo yegg nee naa leen même bu ma jotul jomaay mun naa do booy jox ma jox ma jomaay wala wala ay eh, booy booy jox ma jomaay booy nangam donc man samay nit ñoo fa nekk te démb ak bërki démb du tey ñu porté combat bi ba tey ñu ngi fa donc man maay diriger ñun ñooy diriger man man suñu nguur moo fi nekk suñu nguur kon kenn duñu ko yàqal te kenn du duñu gàllankoor suñu nguur moo fi nekk je serai toujours le protecteur de sax parce que yàqal jomaay mooy yàqal sama bopp yàqal sa jomaay mooy yàqal Pape Mara muy sama doomu ndey di sama nit ñu yàgg ànd nekk muy metti ñuy toog di muñ di jóg donc man man maa jàppale ni maa ngi pale jàppale ni maa ngi pale léegi nag nuñ koy defee moom mooy président moom vraiment ji na ma ngor sama waay la démb ak bërki démb ji na ma ngor bu leen fàtte montre bi ah bu leen gars leen fàtte montre bi montre baa nii mun bu ma ko yóbbee euh, banque ne leen xoolal leen ma ko estimé leen ma ko dañ ne ma montre bi mun nga cee am boo ko joxee garantie mun nga cee am jet privé bu leen ko fàtte tamit parce que voilà montre bi ngay gis nii man sama bopp sama jëmm montre bi mun nga cee am jet privé on avance donc voilà président bi man nee naa leen sama waay la sama gaayan la nit ku baax la nit ku ma bëgg nag nit ku ma bëgg nit bëgg man noonu laa ko bëggee noonu laa ko bëggee dama ko bëgg sama gaayan la bu ñuy wax bu ñuy tey di waxtaan dañuy fàttaliku démb ba may yónnee ay saanu gurubam boobu noonu nekk <laughs> njagañaaw <laughs> voilà du ma yónnee njagañaaw <laughs> donc voilà may déglu di ree xaaxataay